ci ak tënk ci ak gàttal waaye bi ko gàttalee ginaar bi gis nañu itteel gu dundub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam itteel nit ñi ba tax na dama xalaatoon ni bu ma ko mënoon a gën a yaatal eh, bañ koo tënk mooy gën ndax yonente bi sax dina waree su ko tënk ndax ci moom rek la sukkandiku waaye ci biir loolu yëpp it nag itte yu bari yi di ma gàllankoor ba taxaw sax gëstu ko def ko xaw na maa të kon bu ñëwee sàkku bëgg-bëgg boobee ci man loolu war naa leen cee delloo njukkal ak ub cant dëgg la sax euh, lu ma def def gëstu ak lu ma ko yaatal yaatal rek dundub yonente bi dafay géej te géej moom suñ ñëwee def ci suñ kàttan gépp it du soree ku yoroon askoom ñëw di tànk kon lu nu mën a leeral ci dundu yonent bi noonu rek laa ko jàppe kon xanaa dañu ci leeral lu toll ni li jàpp ci noonu lu toll ni li teew di ñaan yàlla mu doon njariñ lu yaatu ci mëndu islaam bépp rawatina ci yoonu Cheikh Ahmad Bamba radiallahu taala anhu xatug waxtu bi nag ak xat-xati jamono tax na lu bari ci ay war-war yu war doomu aadama bi mënu koo def li doon ay warteef ci moom sax du ko mën waxuma la nag di ca dolli leneen loo xam ni ay mustahabaat lañ koy jàppe waaye nag bi may nattable ak naan tey ak ëllëg suba ngoon ba waa daara yi Hizbut ñëw sàkku taxawaay taxawaay boobu loolu ak cant la sama diggante ak ñoom ñu leen sant bu baax euh, fas ko yéene nag fas ko yéene mottali euh, di ci ñaanit ndimbalul yàlla di ci sàkku ngërëm di ci sàkku ngërëmul Sëriñ Tuubaa mi nga xam ni lu ñuy yëngutul ñu rek liggéeyal ko ak sàkku ngërëmam moo tax di ci yëngutu yàlla moom rekkay buur benn buur la mu tànn ay yonent daan leen yónni ñu yëgle nguur boobu nguur yàlla boobu di ko leeral ak di leeral nit ñi yëg ni yàlla benn buur la bopp moom lañu war a jaam waruñu ko bokkaat ak kenn yonent yooyu nag dafa dem ba mottulee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi taxaw akuk farloom ak i coonaam ci jubal mbindeef yi di jihaad ak ñu wedd yàlla ba jantub ngëm fenk ci àdduna bépp leeruk alxuraan yi tasaaroo fépp ñi dëkki ci dëkki taax yi ak dëkki àll yi ñëpp di leerlu ci leer googu yi ba bëgg-bëggub yàlla leer nañ ci kanamu nit ak jinne lépp ci kaw taxawaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi ñu tànn ci bani àddina bi ñu xamee nag ni nit ab jaam mënta am ak taxe mukk muy tay la ëllëg mënta amit ak mucc muy tay wala ëllëg ci lu dul topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla moo wax ni man yutii rasula faqad ataa allah wax na ne wa man yutii illaha wa rasulahu يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم قال له ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين kon loolu danañ ci dégg ni ku topp yàlla akub yenentam danañ ko tàbbal aljanna te loolu mooy taxe gi gën a mag ci taxe ko mooy yàlla ak yonente bi jéggi frontière yàlla ak yonente bi danañ la tàbbal sawara nga sax fa ànd ak mbugal mu doyate topp yàlla ak yonente bi kon mooy taxej nit ki ci àdduna ak alaxira mooy muccug nit ki ci àdduna ak alaxira ndax yàlla dafa bind doomu aadama bi ngir mu jaamu ko ni mu waxee ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun te jaamu yàlla mi ngi amee ci topp yàlla topp ab yenentam ak jaamu yàlla mooy lu war ci alquran mbaa ci sunna mbaa mu doon lu ñu sopp ci alquran mbaa ci sunna waaye lu dul loolu ak réer lekk rek lay tekki loolu tax yonent ku jëf xam ni dara suñu mbir nekku ca jëf joojee donte ak jaamu yàlla nga ci jublu danañ la ko delloo yàlla du ko ittewoo waxaat ci xadiisu ku ñuy wax Irbaad ibnu Saariya radiallahu anhu wax yonte def na waar waaraate woowu sunuy xol jàq na ci sunuy bët sotti ci ay rankoon ñu ne ko yonente bi dafa mel ni sa waxtaan wi di waxtaanu kuy tàggoo la dañu bëgg nga dénk nu mu ne ñu dénk naa leen dégg ndigal ak topp ko ak ku leen mën a jiite daal wax ni ku ci dund ci yéen dana gis ay juyoo yu bari waaye nag bu boobaa dénk naa leen sama sunna ak sunna xulafaa rashidun ñi ma wóotu na ko téye bu dëgër delluwaat wax ci beneen xadis ni wax ji gën ci wax ji mooy wax yàlla ngeen ji gën ci njub gi gën ci njub yi mooy njubug yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni li yées ci mbir yi mooy yañu sos te mooy ay biddaa daal di wax ni lépp lu ñu sos rek biddaa la te biddaa ak réer lay tekki te réer gu ne ci sawara la jëm biñ bëggee nag topp sunna si yonante bi ak i jaar-jaaram ak sunna saxaaba yooyu mu wax ak seeni jaar-jaar loolu yi mooy itteel gu siira yonente bi sallallahu alayhi wa sallam itteel ab jullit kon ci biir loolu la ñuy gëstu fekk nañ boroom xam-xam ñu gëstu woon ci gëstu yu baree bare juddu ko yonente bi sallallahu alayhi wa waxtaan nañ ci waxtaan ci aw askanam ak ay turam fam jaaroon nam doon namte ak faatu way juram bu jigéen yar gu ko maamama Abdul Muttalib doon yar mu jóge fa jaar ci baayam bu ndaw muy Abu Talib mu yar ko tukki ba mu tukki woon saam fekke gum fekke woon xarbul fijaar ak fekke gum fekke lu ñuy wax xelful fadul ak na mu daan doxe jëkk nubuwa gi di ñëw ci moom ak na mu dencee soxna Xadija ak atteloo guñ ko doon atteloo moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca ba ñuy tawax kaaba gi ak la mu daan liggéey jëkk nubuwa gi di ñëw li lépp ay point la yoo xam ne bu ñu ko seetee mat na fukki point ak ñeent yooyu euh, danañ ko gàttal leen li ci ñu jaar ci bu ko defee euh, ak dégg ngeen cay li ci dana dafa am lu tax wax ko. kon askanu yonente bi sallallahu alayhi ak ci turam mooy kan mooy Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdil Muttalib Abdul Muttalib moom di doomi ku ñu wax Hashim Hashim di doomi ku ñuy wax Manaf ibnu Qusay ibnu Kilaab bun Murra ibnu Kaab ibnu Luay ibnu Ghalib bun Fihr ibnu Malik ibnu Nadar bun Kinaana ibnu Xuzayma ibnu Mudrika ibnu Ilyas ibnu Mudar ibnu Nizar ibnu Maad ibnu Adnaan ibnu Udad yonente bi moo daan masaan lim ba foofu yi kadaban nassaabuuna askanekat yi nag fen nañu kon ñu xam ni léegi ñu xamee ci ni kon li tàmbulee ci yonente bi ba ci ñaar fukkeelu maam boobu ak benn loolu moom ku ko nett li nett li nga lu wér waaye nag jàll gi moo du am sukkandiku waaye bu leer moo tax ñu yem foofu ndeyam di aminatu bint wahab amina bint wahab moomu wahbu ibnu abdu manaaf bun Zahra ibn Hakim mooy juróomeelu maamu yonente bi sallallahu alayhi wa kon yonente bi maamam yëpp ay tànneef lañu woon ci tànneefi yi lañ mas a bokk yonente bi sallallahu alayhi wa ku bari ay tur la yeneen tur yu bokkut ak Muhammad ndax Ahmad ci la annabi rasulullah almaaxi wal aaqib wal muqaffa wa nabiyu rahma nabiyu tawba nabiyu malhama alfatih wa taaha wa yaasin wal mustafa wal rasulu wal nabiyu umiy wal xaashir am na yeneen tur yu dul yooyu ndax am na ñu koy lim ba ci ñaar seen tur téere boobu ñuy wax muqaddamatul xidma sëriñ bi tudd na ci lu bari ci turi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa ne ku ko doon wàññi euh, war naa mën a àgg ci limu ñaar téeméer